maa ngi tudd Aliou Ndiongue di président des marchands artisans bu Gorée di euh, di président union régionale des artisans acteurs touristiques de la région de Dakar Dakar bi Sébikotane union bi ñu ngi ko créé parce que tout d'abord association la ñu am récépissé daal di dem euh, def union maanaam euh, le Gorée Soumbédioune Kermel Lac Rufisque ñaay cokke ainsi de suite ba ba ñu toog ñu booloo ñu fal benn bureau yàlla mi dara tëwul de par sama programme man parce que gore kii di gore xam ne ñun dañu néew bariwuñu mais selon sama programme dañu ma fole mu nekk président union régional des artisans acteur touristiques la région de Dakar ñuy ci liggéey di ci liggéey ñu ne d'accord ba tey comme gëm nañu xam nañu mbooloo mooy doole pourquoi pas ñu def ko union nationale biñ ko defee union nationale sànq kii laaj na ma question bi ma tënk ko euh, lii de dama toog ma xalaat ma waxtaan ak benn waay bi ñoo seriñ loo ma ne ko man de dama gis union des des guides union des chambres de métiers union union mais mosuma gis union des des acteurs touristiques euh, des artisans mu ne ma c'est une bonne idée am na dina am ku ma lay booleel bi ma booleeg moom. ma commencé ci liggéey moom ba mu kii mais dem nañ ba ci biir gis nañu que femme bi elle n'est pas artisane même ñi mu nekkal dañu firnde ni kii elle n'est pas artisane elle est politicienne. donc ñu continuer suñu yoon avec les quatorze régions ñu daal di liggéey ñu fédéré loolu moo andi fédération nationale bi des artisans et acteurs touristiques bu Sénégal. waa xam nga assemblée ki di assemblée générale d' abord avant balaa nga def assemblée générale da ngay def euh, URAT nga am d' abord euh, récépissé je crois bien parce que fédération ki di fédération tout d' abord war nga mën a def yow nga nekk euh, association nga am këyit récépissé war nga mën a def sa union régionale des des acteurs touristiques nga am sa récépissé nga soog a fédéré bu ngeen gisee ñun. il a eu les représentants des 14 régions ak yenn président URAT yi mais bi ñu ñëwee dañu dañu def lancement ñu élire benn président mais dina des léegi ñu ci des le temps on laisse le temps ñeneen ñi seen euh, récépissé génn donc xaajaloo bi mooy ay ay ay xalaat yu wuute yu bokkul ñoom dañu bëgg a jug si suñu gis-gis la pour dundee artisanat di ko euh, di ko politiser di ko politiquer ñun nag dañu fas yéene liggéeyal suqali jëmale artisanat ci kanam looloo andi li xaajaloo bi. waaw mbas bi daanaka métti mbas bi dafa nekk loo xamante ni dafa métti woon lool lool ci ñun yéen xam ngeen ko ñëpp xam nañ ko parce que ku daan toog tamit di liggéey di dimbali sa bopp di dimbali sa njaboot toog euh, nangami at. Euh, amuloo ko vraiment lu métti li ñu fas yéene nag mooy euh, tout d'abord man dama leen yàgg gëmloo nee leen euh, li ñuy def pour yow saa nga nekk fa kii buñ ko defee du noonu li gën ci yow donc looloo andi idée ñu booloo yemuñu ci booloo région yi ñu booloo léegi def ko national ensemble bu ñu kiyee dinañu mun a dimbali suñu bopp leneen lu ñu ciy fekk li ñu naan dimbal da ciy fekk loxol borom ñu fas yéene nag def ay foire foire bi nag lu koy andi euh, lu ñu koy def fas yéene def ñeenti foire maanaam benn bi Saint-Louis pour eggalee assemblée général bi beneen bi Pôle Sud Casamance beneen bi Dakar ñu daal di koy tëjee nag Gorée Gorée parce que c'est la vitrine euh, du tourisme du Sénégal moo waral ñu bëgg ko tëjee foofu fas yéene daal dimbali suñu bopp di tàllal loxo tamit autorité yi. lu jëm ci c'est vrai que on a on a bénéficié un tout petit peu des fonds de résilience mais le gouvernement il peut faire mieux ñoom nee nañ dañuy lebal xaalis ak DER donc euh, sànq li ma doon wax ci kii nasaraan que boo waxee le secteur informel mooy 90 pour cent ci ñun jànguñu te ñu ci bari amuñu téléphone yi nga xamante ni mën nga mën a inscrire en ligne kooku boo ko nee léegi da nga koy lebal pour mu liggéey te dafa war a inscrire en ligne. kooku yaa ngi koy exclu teg fële te xamul ku jàngul xamul te léegi dañuy ñaan gouvernement bi ñu jàppale ñu ñu revoir ñu changer méthode yi ñu def ko comme fonds de résilience yi yi ñu njëkkoon jox cinq cent mille yi ñu doon leble ñu defe ko noonu vraiment doon na doon li gën daal ci ñun.